Basumo Basumo Mbare nanko Abidé Fama, le Voici voici les résultats des opposants politiques qui s'opposaient à un opposant. L'erreur que tout le Sénégal a commise les politiciens orthodoxes se sont très tôt opposés à Ousmane Sonko. Très tôt. Voici l'erreur. La volonté de Macky Sall, mooy gën volontairement volonté avec Abdou Diouf changé au niveau du ministère de l'intérieur... andi bureau boo oui oui avec Ablaye Wade changé le ministère de l'Intérieur, oui yéen Macky depuis 2019, Mon, du passation de service avec Ousmane Sonko Nous, ñu nangul ko oui. oh j'ai mal gars, j'ai mal damay très nerveux mënuma nelaw nii j'ai mal parce que mënuma volontaire volonté qu'est-ce que gën ñu ñun ñëpp. du ma passation de service avec Ousmane Sonko. ngeen foog day kaf léegi yegg si na ngeen foog kooku ne woon du def passation de service ak Ousmane Sonko dina ko def ak Bassirou Diomaye Faye ku imposé volonté am cinq ans d'affilée mu imposé la moom li mu gëm ñun on se suffit xam nga lu ñu sonal Sénégal bu fi yemoon mu neex moo ñu sonal bu fi yemoon sax mu neex moo ñu sonal gisu leen fichier gisu leen fichier yéen ñëpp ku leen ne fichier bi lii moo ci nekk waxul dëgg jamono bi fichier électoral bi képp ku ne lii moo nekk ci fichier bi waxoo dëgg tu amul kenn ku leen mën ni fichier électoral bi lii moo ci am amul conseil constitutionnel kayitu mambay Mbaye pour mu mënoon daaneel tay Ousmane Sonko xam ngeen luñu ñu def d'accord accord nañu jugement mambay Mbaye moko moo mais d'ici 6 mois d'ici 6 mois nga mënaat génnee tour Ousmane Sonko ci fichier électoral manam c'est normal tant que ñom mënuñu won bloquer Ousmane Sonko élection du am maintenant nous sommes tombés d'accord nak sur ce sujet et nous l'avons fait gis ngeen fi la ñëw débat fixe fi suñu terrain la. xaaral ma ñamaat benn six six six laay def nak dama jëm mak léegi je suis devenu vieux là combat bi on doit le prendre au sérieux se mettre au galop parce que makimi ma gis fas wul def passation de service ak Ousmane Nous ñun un problème bi moy ngeen jël responsabilité de fichier nañ affaire yi ñu tour di vous n'allez pas voter man exemple la bi France exemple la ci buñu gouvernement d'union nationale

les hommes qu'il faut pour couvrir les élections ne ngeen dañuy gagné bu ñu volonté de Macky Sall bëggul tegal bu ñu ko tegalul volonté le 25 février à partir de 20 h dinañu xeexaat 6 mois 7 ñu yóbbu ñu gouvernement d'union nationale que may jooyloo depuis démb ndax damaa xam ba pare bàcc. gouvernement d'union nationale boobu opposant yi Khalifa Sall ce que je veux wax. Idrissa Seck xam na lu may wax ñoom ñëpp il travaille pour Amadou Ba ay Idrissa Seck yi ngeen di gis Khalifa Sall Mimi Touré am na ñu ànd moom ñoo xam ne Amadou Ba la ñuy joobal ndax da leen di delloo seen intérêt bés bu falo xam naa bu baax lu may wax waxoon tuuma jàpp nañ si de ba candidat bokk nañ mais candidat yi du vingt yi yëpp ñooy dem déedéet lii bu matee dix wala 14 si lay yéex lenn rek ma si métti Macky Sall tegal ñu volonté am ba fii ñu ne ñun on va gagner quoi si ko xam tegul yoon tegul charia al alxatir tegul bible tégul dara appliquer droit appliquer indignité désobéissance notoire de l'administration yéen ñu appliqué ñu ko ñun tey ñu ne tey ñun tay ñun Macky Sall momu tay ñun tay on va la gagner ñu ne tey ñun Macky Sall tay dina def tay passage passation de service ak Bassirou Diomaye fay te ñun dañuy dem voter ji pour mu def ko. jusqu'à preuve du contraire luma gëm xam nga lan mo nar yàq élection yi jeune yi dem di voter ji ñu ne leen seen tour nekk fi mënu leen voter fa la xeexoo bi di commencer bu xeexoo bi commencer fofu vous allez comprendre le reste.

les opposants à Ousmane Sonko de ñu fas yéene ànd combat bi wax les moyens la logistique les hommes qu'il faut ça c'est très très très très important pour nous actuellement les hommes qu'il faut sinon doo leen campagne kenn du fi campagne ñun moom sans Sonko les moyens logistiques soxla nañ ko yeen les opposants gis sont en opposition bi ñoo gën radical sax ñen wa passé. fi mais lolu je laisse passer

waxuma waa projet bi de projet bi encore une fois dañ ko bind Ousmane Sonko ñëw ne ko booy kaa jiite projet bi waxuma ñooñu ñi nga xam idéologie Ousmane Sonko ci livre solution bi idéologie Ousmane Sonko ci livre pétrole gaz bi man fa laay waxee. bu ñu bëggee Ousmane Sonko génn kaso du ay accompagner Bassirou Diomaye Faye voté carte ñu bàyyi ñuy voté voté ci mais gagné bi.

duko def ak Cheikh Tidiane Dieye duko def ak kenn le système continue te Khalifa xamna lumay wax Idi xamna lumay wax ñom ñep xamnañ lumay wax. bu Sonko génnoon legi wax len ko bu Sonko rëccoon legi wax nenen préparez-vous parce que ki du def ak ñun passation de service donc préparez-vous au combat soyez prêts. man la combattant laa de ken mënuma téré wax waxi combat. élection dañ koy dem comme yéna ko wax mais préparez-vous au combat ndax police ak gendarmerie Macky Sall ñoom ñooy gérer combat bi pas ñun.

Bassoumo Bassoumo Mbare les opposants moyen logistique la ngeen di ñi bëgg élection moyen logistique boo leen ko amul jarul élection jarul élection jarul élection. Macky Sall da jaral taal réew mi dem doon wax Macky Sall day taal réew mi a dem loolu la nar def nous en conséquence préparons-nous en conséquence les brigades de combat les jeunes volontaires ñi mën dem Fouta assurer foofu ñi mën assurer Touba ñi mën assurer sur Dakar nga xam ne ne prix ñu jël suñu quel que soit le prix à payer l'opposition va gagner ça ne sera pas au Gabon Makissal, Sall man du ma nekk di ñaan ay nit